mais damaa xawoon a xuloog moom ndaxte maa ngi moom ñoo bokkoon équipe mais mu dem génération foot rek bàyyi sama équipe affaire bi naqari ne ma lool lool xaw ma nu may def mais sama équipe nag ñoom ñoo ko def ndaxte ñoom it loolu jéem njaagate ñooy njaag te tey sax dinaa leen xaw a laal tuuti kooku taala faal la donc doomu Médina la di sportif seen kër ay jaman la woon seen kër seen kër léegi lan ci waxtaan Serigne Saliou Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram da daan ñëw ca biir kër ga sëriñ Saliou Mbacke taala soxna la woon ci sëriñ Saliou Mbacke taala ñu lay nuyu bu baax bisimilah génération foofu ñii ñoo jël sagement ne yóbbu ko fu nekk ba ñu mën koo jëriñoo Sénégal te ñoom. Saalum nuyu fay naa la maa kontaan ci yow mais nag bi ñu bokk nga bëgg a yàq. ñoo <laughs> ñoo ko bokk. loolu ñoo ko bokk non loolu ñoo ñu ko benn yoon. <laughs> bisimilah kooku taala la kii may waaj ñëw nag kii xam ngeen ko xàmmee ngeen ko ma nekk mu ne fa sama mag sama xarit ñun ñaar ñu bëggante mu doon nit ku baax. koo xamante ni bu nuy wax ci sport boo laalee ci basket bi fi ñu toll bu ma koo waxoon basket dina ma fàttali de grand basketteur moo ko waxee football moo xam ma ay footballeur soixante yi bu ma ko ñu indee ci làmb ji mën na maa wax làmb yu yàgg loolu yëpp expérience la bu mu dund ndaxte fi mu dëkk la Médina Médina capitale daanaka lépp kat ba ba pare moo nekkoon banlieue banlieue wu Dakar te xam nga banlieue ñun aay ñëpp fa la ñuy génne boo xoolee léegi banlieue bi boo demee Pikine boo demee Parcelles boo demee Guédiawaye Thiaroye ñu aay ñëpp fa la ñuy génne moom it booba Medina moo nekkoon banlieue xam ngeen ni Ndakaaru léegi rëy na de bu demee ba Medina nekkoon banlieue <laughs> booba xam ngeen ni yàgg na kooku mooy Alaaji Papa Dieng Alaaji Papa Dieng bisimilah ak ah, ku lëg ak goréen la <laughs> goréen la benn match laa koy fàttali léegi <laughs> man laaj ko kontaan na. Alaaji Papa Dieng nuyu naa. dëgg maa ngi lay fay. maa ngi nuyu li ma wax ci yëpp dafa am benn match bu may fàttali. góol ba ci mu paas avant centre bi dugal bii ban match la. final euh, Gorée Foyer. en 1967. 67 waaw. Oh, la Masta Diallo. Masta waaw parce que boobu dañu euh, ja euh, Gorée. Foyer Foyer daf ko mënee 1-0. ba quatre-vingt-neuvième minute xam naa Massata xool situation bi mu compliqué. waaw bal bi ñëw au lieu mu dégager ko mu jël bal bi. traversé dugg terrain bi dribblé ñëpp. waaw di ko xool. di ko jaaxle. day nit ki xanaa yëfu dof lay def ndax bal bi ñu ko jëlee dañ koy dugal seen camp te boobu dañ leen mën a 1-0. bi mu ñëwee ba dugg ci biir surface bi nag sëgg dajeeg Séga Cissé. Séga Cissé. le baroudeur. waaw grand marqueur de hmm. ci benn match mën na ci dugal 4-5 bi. mu jox hmm. bal bi Séga Séga égalisé ñu dem prolongation mais finalement Foye moom mujj gañ. Foye moo gën Foye boobu ñoom Abou Diop ci le football. magam moo ci joué. ak Pape Ndiaye. Issa Mbaye Issa Mbaye ñoom Petit Tall. Petit Tall Petit Tall mu dugal deuxième bii ba. ku leen góolul ak Insa milieu de terrain. du moins Petit Tall mu dugal premier bii ba Insa mu dugal deuxième bii ba. deuxième bii ba waaw euh, ku leen ku leen góolul keroog. Toumani euh, Toumani Diallo. Toumani Diallo le grand gardien de l'équipe nationale. mu leen góolul keroog. waaw dëgg la El Hadj Papa Dieng gi noonu ñu bàyyi ko mu toog ci kanam dinañ ko dugal ci football dugal ko ci làmb ah mbokk yi ki ci des nag wax naa leen ko. dafa juddu fekk ngemb li ci ëtt bi mu jël ko takk palmarès bi mu am ci làmb pour mbër am ko dootul yomb maa daan Tyson maa daan Yékini maa daan Moustapha Gueye mm. maa daan Baboy maa daan Baboy maa daan Tapha Tine waaw dafa am ay genre mbër yoo xam ne kenn mu ñëpp daanandoo leen mu yombul. ay dëgg mu daanandoo leen mu judd ci làmb di un grand champion kooku mooy Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye bisimilah yegg si le yi ma koy laaj. <laughs> laaj bi may laaj laaj ginnaaw bu ma la nuyu. incha allah. eh fii fii temps yii mi ngi entraîné <laughs> Bombardier <laughs> yàq nga problème ak. waaye eh, ci yàlla nekk tam mi ngi entraîné de. loolu na nag nam naa. Eh, mais maa yaa ngi ci jàmm. nagay tey. sant yàlla bu baax. sa premier combat kooku bëri. Samba Law Samba Law. waaw Samba Law. nga daan ko. waay. ñaata combat nga am ko fi ñu toll nii xam nga ko. 21. 21 combat. Balla Gaye numéro 2 li si des damay bàyyi ba nga toog ñu waxtaane ko. d'accord bisimilah. merci beaucoup champion kooku mooy Balla Gaye numéro 2. mbokk sport la ñuy waxtaane ñuy am mbégte à la 2 di baalu ak ñëpp nag di baalu ak ñëpp ndax ci weeru koor la ne te di ñaan jàmm ndaxte lii ñuy def yëpp jàmm ko mënam maye bu réew mi amul jàmm. du nu mën a def lii ñuy def te lii dafa bokk ci dundu doomu aadama.